nañu mën a euh, arriver à une reprise normale euh, du fonctionnement du mode de de de de, de fonctionnement des des cours au niveau de l'université parce que gars dañoo jàpp ne euh, front politique bi moo tax ngeen gën a euh, serré bis ah, benn duma ministre de l'enseignement supérieur. mais vous avez été directeur du COUD. Oui, mais je suis ministre de l'éducation nationale donc le droit de réserve daf may obligé nga bañ cee wax mooy président li ma ciy wax du ma dugg dans les profondeurs du ñu échanger ci biir li ma bëgg a wax mooy li am kuut man d'accord maag yow ni nga ko wax te présenté c'est quelque chose nga xam ne ñun ñëpp dañoo war a taxaw marqué. c'est un non ba pare nag nee nañu poursuivre. c'est un crime. non nee nañu poursuivre muy élève muy toute la communauté universitaire muy étudiant muy ñëpp tey affaire boobu. man d'accord naa ne dañoo war a taxaw ba clarifier ko ba pare. ku ci sa loxo dugg. war nañ la parce que bu ñu continuer bu ñu continuer man bu man la de ñun am ñu wax dañ taxaw pour xool régler problème boobu balaa ñoo avancer parce que problème boobu mënul ànd ak est-ce que yow wóor na la que ne tey bu ñu ubbee université yi condition yooyu dootu fa am. mais le li dafa créer traumatisme. non déedéet dama la ne est-ce que. loolu est-ce que war nañu mën a accepter waat mu am. c'est inacceptable. waaw moo tax man jàpp naa ne bu ñu décidé ne du ñu tëj ci ji ba léegi condition yi ak acteurs yi nekk foofu defoon loolu. wóoloo gu ñu ne bu ñu leen tudd si ci loolu dañ leen def xam nga man nekk naa directeur. mais de juin à maintenant vous avez eu le temps. non xam nga bu ñu jëwee ci situation d'enquêter d'investiguer et de situer les responsabilités xam nga réew mi fii pourquoi la toute may mën a gisee réew boo gisee réew mi fii boo gisee réew mi 2021 ba léegi li fi xew ci rew mi xam nga ay am nay tentative de déstabilisation ñu identifier nit ñi ko def gouvernement bi tey jël nay mesure di xeex ak ñoom gis nañ ne ñu ngi dellu si vers la paix te wu réew mi fii ak stabilité réew mi amul lu mu jarul en tout cas Macky président Macky Sall bi ma gis ak président ak premier ministre Amadou Ba bi ma gis ak gouvernement bi ma gis ils sont déterminés pour que réew mi nekk ci jàmm gis nga condition yi nga xam ne ay bis yu nga xam ne dañ fi doon ñëw di woote gis nga condition yi boo duggee ci Sénégal nga gis fitna bi Sénégalais yi nekk kenn du bougé ak affaire yooyu loolu yëpp man politicien laa bu yàgg xam naa ni kuy def analyse bi ci réew mi di nga analyser waa cité universitaire xam nga cité universitaire wu Sénégal bu Dakar gudd dina am ay période bu nga xam ne soixante mille personne dinañ fa nekk temps université bi am na ñuy quatre vingt mille mbaa cent mille ça dépend mais dina am période bu nga xam ne cité universitaire bi soixante mille la ñoo fay nekk mu nekk dëkk bokk na dëkk yi ci gën a réewu senegal te foofu dëkk la bu nga xam ne amul màggat amul xale ñu am vingt ans jëm kaw la rek ba entre ay waxambaane ñoo fa nekk muy dëkk nag lépp nekk ci biir Sénégal fi mu tolloon mooy li nekkoon ci biir Sénégal muy woon foofu parce que da ñi doon yàq ci réew mi dañoo defoon foofu cible gis nañ ne seen objectif yëpp bu ñu jógee sax di wax Sénégal gagné bu ñuy dem di jubilé foofu la ñuy jëm pour taal dëkk bi ñu am lii ñu am xaw ma de géré wu ko de près mbaa lu ma ci xam tamit du mën maa koy wax mais instance universitaire yi tax ñëpp xam nañ lan mooy autonomie universitaire ñoom ñooy analyser te jàpp naa leen ñooñu seen autonomie duñ ko fowee donc bu ñu soutenir gouvernement bi. non bu ñu jëlee décision non du soutenir gouvernement bi. bu ñu appuyer. non dem dans le même sens. non non que les autorités. non non non non bu ñu jëlee décision tëj université bi ñoom ñoo jël décision kenn mënul tëj université bu dul assemblée de l'université. ñoom ñoo tëj décision bi ñoo continuer dañ koy tëj ñoo ne nañ def formation en continuer en ligne maintenant. situation bi tey def euh, en ligne ou ne pas faire en ligne ñëw na tegu ci kaw situation bi fi nekkoon man nekk naa ministre de l'enseignement supérieur au Sénégal mais musuma waxaale samay position syndicale dans le secteur même ba ma nekkee ministre damay assumer samay position syndicale parce que dama bokk ci ñi nga xam ne dañoo bokkoon ci ñi nga xam ne dañoo taxaw di xeex suma remettre en cause samay position syndicale ce qui fait que du ma ko remettre en cause tamit tey ba tey nii bu ma ko nekkul ndax xam naa SAES e nu mu bindoo ak nu muy waxee ak prise de décision yi ñu nekk mais tey ñaari revendication la dafa am benn revendication ak beneen situation bu nga xam ne nekkoon na revendication tamit situation bi ba mu eggee foofu te tey nag man gisaguma taxawaay ñi nga xam ne ñoo taxoon ne dañuy taal université bi gisaguma ci ñoom. gisuloo ñu condamné ko non gisaguma ñu condamné ko gisuma ñu nekk ci taxawaay bu bis bu jot ci secteur de l'éducation comme beneen secteur fu mu tension tuuti da ngay gis ne ñu jëmale ko ci école beeg ci université. donc loolu ngeen di reproché. non benn ce ne il non reproché wu ma dara SAES dama ne man samay position syndicale lu ma ko wax mais damay analyser de façon concrète situation bi tey situation boobu yeneen soubassement yi. jàngale bañ a jàngalee kooku syndicat bi dafa am autonomie am ay instance de directeur mais gouvernement bi tamit dafa am ay information am nu muy gérer am ay objectif di veiller à la stabilité du pays au-delà de la stabilité. danga nga doon xaar SAES e def communiqué condamné. non taper sur la table. Euh, euh, à ce que les, les responsabilités soient situées. déggoo li ma la wax au di def sortie. non non non may may mun may mun man li ma wax ne ragaluma samay position j'ai dit que le SAES. man SAES laa bokk. dafa am ay instance de décision dañuy décider ku ci nekk ñu décider xam nañ lu ñuy décider donc loolu sama wàll géré wu ma ko. mais ma ne en même temps man tey sénégalais la membre du gouvernement université bi tey li fi amoon il n'est plus question mu am fi te loolu man gisaguma comportement ñi nga xam ne ñoo ko fa indi woon taal ko université bi ci li nga xam ne bu ñu ubbiwaatee université yi du ñu taxaw di liggéey ci loolu. d'accord te loolu day déstabiliser réew mi. ma ne gouvernement du Sénégal ñëpp gis nañu effort yi ñuy def mooy def parenthèse di remercier les forces de défense et de sécurité du pays yi nga xam ne contraintes yi ñu amoon ak attaques yi ñu amoon yëpp sont parvenus à rester debout rétablir la paix créer les conditions de confiance pour que sénégalais yi xam ne fii Sénégal mun nga yeewu dundu fi dem doxi say soxla dellu si defe naa loolu jar na effort yu nekk muy ñëpp nag muy jàngalekat bi muy politicien bi. muy parent bi muy for euh, parent bi muy euh, les forces vives du pays ñoom ñëpp. nañ ci te université bi ah ak noonu na fu nga xam ne tey la bataille la vraie bataay c'est de fair de telle sorte que du politicien bu jóg rek nga ne damay dem université taal ko xeex boobu nag jàpp naa ne ci la gouvernement euh, ci la assemblée de l'université nekk. gouvernement bi di ko soutenir. SAES nag. non SAES non SAES ci fànn boobu lañ jàpp defe naa man dugguma ci gestion bi ba xam ni muy demee. Hmm. mais man mun naa wax ak waa SAES yëpp te dinaa wax ak ñoom. alors euh, laaj xam lan la. lan lay kii bi parce que ñun gouvernement lañ ñoom syndicat lañu man damay jàpp ne ku nekk mu ngi def si mais bu ñu waxtaanee defe naa ñoom xam nañ ne gouvernement bi. dafa taxaw dafa taxaw pour renforcer les universités. mais dafa taxaw aussi à des moments bien déterminés la priorité de la sécurité des personne du Sénégal. que université bañ a nekk poudrière. waaw alors.